parfaitement d'accord avec Birame Souleye Diop gis nga la woon woon ni la dëkk boo xam ne danga fay nekk di sàcc di luubal alalu askan wi loolu nekkatuñ fa ñoom dañoo teg projet jub ak jubal kon sàcc mënu faa am on se dit la vérité te gis nga Sénégal toog muy dox gi moo ko yàq te boo gisee ñiy kaas ñëpp dañuy toog muy dox moo tax ñu yor seen làmmiñ di wax rek mais dama xam ne salaire u ministre tudde làmb xaju ci ku am ku am doom wala ngénte xaju ci parce que ministre liñ koy fay je crois que bu ci gérer boppam ak ay famem jeexal tàkk bu fekkente ne ci loolu kese la yem sàccul alal askan mais lan ngeen bëgg. bu dee loolu problème nekku ci kay lan moo tax man mii du ngeen ma tudde làmb ñeneen ñi ci des Modou mi dëkk ci koñ bi wala Demba mi dëkk ci koñ bi nekk maçon doon jàmbaar loolu nangoo liggéey lan moo tax du ngeen ko tudde làmb seen tappale yi ngeen nekk génn leen ci gouvernement bi nag du gouvernement sàcc de te ñoom duñ fen de lépp luñ lay wax luñ gëm lañ lay wax de duñ la wax luñ gëm kon seen dóor yi ngeen nekk ak seen doog muy dox gi ngeen nekkoon da ngeen di xam ne loolu jeex na ñi fi nekkoon dañ daan sàcc leen jox alalu gis nga ñi fi nekk nii dañ leen fay teg ci ay principe gis nga ñoom principe yooyu da di xam ñi yan principe lañ am pour pourtant barki Demba Ndiaye ñoom ñoo fi nekkoon opposan de kenn mosu leen tuddi lam lan moo tax tey ñoom ñu génn wax loolu noonu ñenn ñi tëb di dal di wax di cëm fii di wax mais arrêté leen toog muy dox gi jeex na Sénégal de ci wàllu bépp nag toog yor sa làmmiñ rek wax lu neex ak ay link link lan mooy link lan mooy link mais dama liggéey men mais nga toog ñaan ay link dinaa la boole diw sànq mu teral la dina mu mais ki mu lay teral la lay du day liggéey alalam bopp xëy ba ñëw di la ko terale di toog di bàyyi njabootam kon am na ci yoo xam ne nii mooy ndaganal ak sàcc demal sàcc alalu askan wi ñëw jox ma ko loolu jeex na fi de bàyyi leen xel ci loolu. loolu mënatul am game boobu jàll na beneen instant bi ñu ngi ci beneen monde dëggal ak jubal ci fu lañ toll fi mu toll nii mais pas sàcc alalu askan bi di ko jox kenn bàyyi leen xel ci loolu bu baax a baax a baax félicitation Birame Souleye gis nga nit da ngay ak sa conscience taxaw wax li nga gëm wax fi nga jëm nit ñi xam ko lii mooy dëgg Sénégal nii la war di doxee. mais ñenn ñu bëgg ñu koy wax dëgg ñenn ñu koy sàcc ak kuy fen lañ bëgg quoi loolu jeex na Sénégal.